de zéro à euro. waaw bay ñam euro dëgg la. di di heure. am na di béggee euh, ki ma seeti woon nag euh, ni Youssou mel ci yow ak euh, Pape Cheikh Diallo noonu la mel ci moom muy xale boo xamante ne elle partie de rien. Mm-hmm. commencé li nga xamante ni mooy di def ay vidéo ci WhatsApp bi di ko partagé dëkk bi yëpp di tëdd di reetaan. kooku elle se nomme tout simplement Fa Aïdara ma demoon xooli ci lan lay yëngu ak actualité dem seeti ko comme sama voisine la. ñu dem xooli élément bi on revient tout de suite. hello la team bienvenue ci seen euh, rubrique je suis parti de rien tey nag dama ñëw seet si benn ndaanaan boo xamante ne Sénégal gi yëpp d'accord nañ ne bi mu duggee ci milieu bi bay exceller ba léegi nii ñëpp ñi ngi ko naan gongo kooku nag Fa Aidara la tudd nekk tiktokeuse bu mag a macha allah Sénégal gi yëpp bëgg ko ma ni xaama doxantu rek te moom sax sama voisine la donc ma ni xaama ñëw euh, seet si ko xool nu mu toogee Fa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fanta <laughs> sama baax maa ngi leen di nuyu tamit yéen ñëpp waa TFM di nuyu képp ku seetaan émission bi. alors Fa Aidara su ma doon laajtee tey Fatou bintu mooy kan ak fan la juddoo. Fatou Bintou mooy juddoo Dakar màggee Passer yaroo foofu waaw. <laughs> nekk nekk xale bu terrible bi mu nekkee xale wala wax ñu rek. <laughs> noo terrible bu ma woon nag wax dëgg fa neex yàlla ma moom damaa mësu tàppet yarul lañu ñëpp xamee du xuloo du ma xeex mësumaa xeex sama àdduna donc école jàngi kaf ak ñëpp retaan ak ñëpp. ñëw nag sonal suñu koñ sonal sama maam sonal suñu waa kër. lan moo la inspiré ndax ba nga ciy dugg euh, il faut le dire euh, kenn dugg ci woon. Mm-hmm. dëgg la TikTok nag nee naa yàlla war a dogal rek parce que avant may am TikTok dama doon def ay video di ko dugal si statut WhatsApp yi léegi na nit yi di ma wax yónnee ma yonnee ma yónnee ma boobu xam nga ma woon TikTok. par la suite tamit dama doon gis TikTok nii rek application nit yi di si dugal ay vidéo ma laaj sama xarit ma ma man ko yow TikTok nan la ñuy defee vidéo yi mun ma kaay. bi ma demee si moom na mu won man ne ma nii lañ koy defee fekk boobu maa ngi amoon iPhone 5 may def vidéo TikTok fekk boobu sa premier vidéo ma ak moom ñoo ko ànd ñu def vidéo bi ma pare bi fees ma supprimé application bi nekk si leneen jéeg saay rek nit ñi dama envoyé vidéo yi na ma yéen sa mi ngi toj dëkk bi ma ne ko li kan lañ def ma ne ma sa jour xew mag bi lañ ko def ma du ma téléchargé application bi duggaat gis affaire yi def kaa nag ma ne waaw. macha allah ba tey jii nga atteindre li nga xamante ne mooy les deux millions d' abonnés euh, Fa Aïdara quest que sa te fait. ça me fait plaisir ça me fait plaisir deux nit di ma flow di ma bëggee di ma safoo contentement bu rëy a rëy laa ci am wax dëgg fa neex yàlla nag di ko sante yàlla di ko sante tamit fan si yeeg ñu jàpp si combat bi ba tax tey ma egg si fii nii. waa léegi loolu yow da leen koy gën a wax rek parce que je sais pas kuy ñëw di waxaale yow euh, bu bu la prix bi arrangé wul. mais bu dee entreprise ndaw ndawaan la dama lay parfois dama koy def sax gratuitement. am na ñu bëri ñoo xam te ne ñu bi seen entreprise wala ñuy jaayantu ma faa man étudiante la wala damay soog a door damay ñëw ci milieu damay jaay damay jaaylee ma leen d'accord amul problème jox ma say affiche ma partagé la comme ça parfois sax maanaam danaan léegi da ngay def loo xam te ne c'est pour les petites entreprises moyennes entreprises ak grandes entreprises comme sa ku si nekk ñu mën la fay. son excellence monsieur le président Macky Sall suñu njiit comme ni mu ko waxoon ci vidéo bi rek suñu tonton la suñu papa la. suñu xarit la suñu mag la suñu lépp la te moom mooy njiitu réew mi moom moo yore réew mi donc nañu dimbali te yàlla tax yokkal ñu sécurité bi ci dëkk bi ñëpp a tiit Fanta instant bi kenn nekkul ci jàmm booy génn yaa ngi gestu di xool. wala ma fay agressé woon. nekk sa biir oto di romb. moto bi ñëw ne ma rëbët këf ma këf sama téléphone yóbbu. ma jooy na jàpp jàpp ki ma àndoon poñe ko naan ko damay xaru naan ko damay xaru di mun a am faa dalal doo xaru. donc euh, faa ñu bàyyi la rek nga wax sa mot de la fin bu fekkee dafa am loo bëgg a jàllale rek. waaw mot de la fin bi nag mooy ñu gën a yokk jaamu yàlla bi gën a gën a gën a mustu ci seytaane parce que seytaane mi ngi ci biir nit yi di jaxase nit yi di di di di dugg si diggante yaay ak doom xarit ak xarit. parfois nit dalay wax benn wax bu sew sax boo xam te ne fa tàmm na la ko wax doo ko daan jàppee dara mais seytaane day ñëw rek benn dugg si yow. am na solo yaakaar naa ni euh, xale bi nga seeti woon réew mépp réew mépp ko dëgg la man dama foogoon sax euh, juddoowul fi nga xamante ni mooy Dakar nekkati xale bi bor booy parcelle la. Mhm. vraiment fa bi ngeen di gis euh, ci réseaux sociaux yi mu xaw a timide et tout ça naturellement noonu la mel si yariñ bala may nuyu yaayam de passage mais fa ay dara dama ko njëkk laaj naka nga def yow ba def li nga xamante ni mooy TikTok naka nga def ba am sensibilité nit ñi. nii laa mës a mel sama maam moo ma yar dama daan nekk suñu kër di leen dajji di def affaire yooyu euh, ma laaj ko aussi parce que xam nga Mado succès dafa gaaw yëg succès dafa gaaw ma laaj ko euh, bi mu atteindre li nga xamante ni mooy 2 millions d'abonnés yi naka la ko def mu ne ma ça fait plaisir et Fa Aida ci ay vidéo comique yi muy def ci tooñ yi muy tooñ wala parodie ay way Youssou Ndour yi muy def da jàllale waale ay message mi ngi ko doon wax tantôt euh, na ni am na communauté boo xamante ni gindi nit ñi vraiment di leen jàppale ma ma moom bu baax a baax mu ne ma aussi mi ngi ci ay projet parce que nañ ko waxtaanee rek il gagne de l'argent quoi qu'on puisse parce que partenaires yi dañuy ñëw vers ñoom et tout ça di waxaale bien vrai que am na manager bu koy coacher bu baax a baax mais mu nekk ci ay projets yoo xamante ni nee na elle aimerait bien di dem si région yi sous région yi di xool loo seen activité et tout ça loo xamante ni mën na leen ci jàppale vraiment mu jàppale leen ci parce que xaalis baa ngi a baax parce que Youssou Ndour da ko fonk loolu parce que xam na ni am na talent bu nekk si moom mm-hmm. voilà. Mm-hmm. am na solo am na euh, solo c'est vrai que laaj nga ko ni nga a laaj lépp. waxtaan nañ ci lépp yaa ngi seetaan waxtaan nañ ah. lu fa ne xam naa ko. Ah. laaj nga fa ay dara diggante ak yeneen tiktokers yi ñi am 2 millions. jàmm rek mën a am seen diggante sama xarit la. ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk baay loolu mënta ñaaw da ngeen ma may ma nuyu yeneen tiktokers yeeg tiktokers maa ngi nuyu Pape Gora Sarr euh, di nuyu euh, naara ah. <laughs> maa ngi nuyu Faynara <laughs> ah, eh, ay deux yooyu dafay am ñii njëkk am eh. ñii bi amee ñii ne nañ félicité nañ am na ñu mu neex am na ñu mu neexul ñii bi